te benn pexe amu ci ndax wër nañu ndomb réew mi ba wiiri wiiri jaari ndaari muy téléphone fixe di connexion mu baax mbaa mu bon ñoo fi ne wax ji di ndax président de la république dina ko seetaan amaana seetaan na lu ko raw fuuf di grève waa SYTJUST bi di liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon fii ñu toll tembe am na ñaari weer seen grève boobu maître Malick Sall ministre de la justice taxaw fa mu taxaw ñi ànd ak maître Aya Boun Malick Diop taxaw fa ñu taxaw te askan wi dong ñoo koy yëkk waaye du ñu dab prisonniers ya nekk ca kaso ba ba fi mbas mi tàbbee ak tey amatuñu visite la daj mburu daj ko ca taal ba kenn seetiwu leen mu mel ni dañu leen tëj ba pare damm ca caabi jë nañu leen bàyyi xel te di leen dimbali ñu mën a gis seen i mbokk sonn nañu te mënuñoo wax ñu wax ca la xew Mali coup d'état gàcce la ci Afrique gàcce la ci démocratie ñu ñaan yàlla mu yem fa te bañati fa am wasalaam ba beneen conférence asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi a baaxoo